Crépin Diatta mel na ni bidéew buy fànk ci équipe nationale bu Sénégal militaire terrain bile fësal na boppam bu baax ci fëq gi mu fëq caaxub Tanzanie foofee ca Caire juddu le 25 février ci atub 1999 ca Ziguinchor milieu terrain bi ñaar fukki at képp la am ci 2014 ak 2016 Crépin dans junior sa tchaba bu Chor. 2016 ak 2017 mu Oslo Football Academy bu parcours professionnel mu ko 2017 ak 2018 Strasbourg 2018 mu club de Bruges

Thank you.